Lamine Samba xam ngeen ne euh, li ci yéen kaay yeeg anam bi mu koy defee neex lool askan wi neex ñu itam Lamine Samba ñuy am euh, saa su ne mbégte di jàkkaarloo ak moom ñu ngi lay dalal euh, basin bi rafet na. mais maa ngi béggee. <laughs> tey moom dóor nga dóor nga gars yi si plateau bi 5-0. non parce que xam nga dama leen di yootal. Ah. xam nga affaire bi <laughs> maanaam doo am sax ay armes yëpp sànni ko. Ah. xam nga dem dama ñëw indi mayo maa ko tay de. waaw du caaxaan de. bàyyi seeti jaar jaaw ak kii ñu génnee seen suufu waxande yi. ba mu jeex ma <laughs> woon leen ni xëyum 404 bokk la ngott man yoon. <laughs> mais yow Tefan nga c'est normal que nga sañ parce que sa sa période nga nekk la bi. non Tefan ki moom fële la. fépp la. <laughs> moom de mayo bari nga fi andi xaw ma kanaar ñoo la fay. soo ko xaw a mënul. mais mais xam nga lu neex. lu neex. benn maire dafa ma gis démb quoi. Mm. ci ci ci daral bi Lamine ma ne ko naam. waaw mu ne ma yow boo xëyee suba teel doo dem nelaw bi sax nga toog ci ne xeer wu téye sàkket da cay daru. wallaay dëgg la. naka mbaa ñu ngi sant bu baax a baax ñoo ñu bàyyi la ak téléspectateurs yi ak li ci yéen kaay la revue des titres. alhamdulilah ñu tàmbale ko ak coow li nga xamante ne nii mi ngi ne woon cobboyan ci Sénélec ak Akilee ndax boobu ak léegi xam nga gaa yaa ngi doon wax naka la contrat bi demee ancien directeur beeg nouveau directeur beeg état beeg di ci tudd ku nekk léegi nag nee na ñu am na beneen deal bu bees boo xamante ni ne am na ci biir léegi nag ku bëgg euh, lu leer da ngay dem yëri l'observateur ndax euh, faram-fàcce nañu ko ci biir waaye am na leneen loo xamante ni nii moom moo xew muy euh, li li li gars yi di wax rek xool moom mënta bëgg bañ am na ci ñu bari tey ñoo xamante ni ñi ngi seen biir néegu sëy yi l'observateur yéene kaay nee nañ seen xel yëpp ma nga démb maanaam seen seen copain yi woon démb <laughs> nde jigéen ji boo ko def dootoo ko defee da ngay ñaanalante rek <laughs> am na leneen loo xamante ne am na euh, ci diggante. Euh, APR ak PDS xam nga APR ak PDS ñu bari dañoo jàpp ni ñoo bokk ndey ak baay parce que Macky Sall kenn mënu ko génne ci biir parti démocratique sénégalais léegi nag ñu euh, ni ni PDS jeexale woon noonu la APR tànk yooyu ci tànk yooyu la nekk euh, loolu parce que bi PDS di jeexal dafa mel ni sabar gu tas ñëpp di feccandoo ah bu ñu jógee foofu ñu wax ci. moo mat waaw voilà mooy. moo mooy yoot voilà. Ah, moo tax ma la ñoo ñoo bokk destin. lu am solo nga ah, ñoom ñoo waaw ñoom ñoo bokk destin. Eh, coow li eh, mun nañ ko tuddee encore ngom toujours ngom. Eh, te xam nga am na benn théâtre sa neex bu wax naan mm-hmm. <laughs> encore. xaw ma lan toujours xaw ma lan toujours xaw waaw parce que bu ñu ko déggee fii bu subaa ñu dégg ko fay lool nag bu samay kàddu mhm. le quotidien moo ko wax mu ni euh, Babacar Ngom mhm. bu ñu ko déggee ci mbiru euh, Akilee ak Senelec ñu ngi koy dégg léegi ci coowal suuf mhm. amul yéene kaay booy xëy Euh, du ak am bu munte doon te doo ci dégg Babacar Ngom ci coowal suuf ak loolu quoi lan moo xew loolu la ñu quotidien yéene euh, xëy xamal euh, bu ñu jógee ci foofu dañuy wax ci record record dafa dikk ak ñun lan moo tax Zidane soxla ki nga xamante ni moom mooy Sadio Mané mu jógee Liverpool dem fi nga xamante ni ni moom mooy Real de Madrid loolu la ñu record yéene kaay xamal record yéene kaay dikk na ak ñun Euh, ci la de Guiers numéro 2 mi tàllal loxo euh, ki nga xamante ne ni moom mooy tafaatin nen na ñëw ñoom ñaar ñu revanche bu ñu jógee foofu dañuy wax ci Source A Source A wax na ci euh, mbirum KFC ne coow li lan moo ko waral dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg li ñu war a samp foofu la ci corniche bi mu dox ci diggante Abindour Atepa ak ñeneen ak ak famille Babacar Ngom moo tax ma encore Ngom toujours Ngom toujours Ngom waaw ah, noonu la ko yéenekaay bi euh, xamale euh, bu ñu jógee ci foofu dañuy wax ci stade yéenekaay mu ne Barcelone moom bu gañewul tey mun na wax adieu championnat bi ah noonu lañ koy waxee Cheikh Tidiane Diaw. waaw ah, dafa mel ni parce que fi mu toll nii dafa mel ni Real mu ngi ci kaw. Mhm. ah bu gañewul noonu la. waaw ah, noonu la noonu la ñëwee waaw noonu la noonu la nga rek. Oh, gars yi dañoo rax ci biir quoi. waaw looloo koy yàq. dafa am ñu si bokk ñu si jàpp. waaw <laughs> dañu jógee foofu dañu ñëw ci Sud Quotidien mu ni waaw Dóor fayu ah. Hmm. Dóor fayu xam nga euh, euh, Sénégal euh, Bruxelles ak ñoom seen dañu ko tëjaloon seeni frontières Sénégal nee na ku ko ko teree rek ku ko ko rek mu rokkin ko ko. amul di ku ko tere doo dugg sama dëkk ak du ma dëkk mu mu dugg ci Moustapha Cissé Lo it jamono ji euh, mun nañu wax ni que mi ngi ne fàng ci euh, xët mu njëkk njëkku yéenekaay yëpp sunu làmb dafa dikk ak ñun ne làmb ji sàjjati na mm-hmm. su ñu nee làmb ji sàjjati na attention léegi ma bàyyi leen ak seen rédaction mu ne Gris Bordeaux ak Balla Gaye numéro 2 taxaw na Eumeu seen ak Balla ak Bombardier taxaw na mm-hmm. Modou ak Ama Baldé taxaw na Siteu ak Papa taxaw na mu ne combat yooyu yëpp mën nañ jàpp ni incha allahu rabbi euh, ci atum 2021 lay am man am naa ñeent wala juróomi combat yoo xam ni leer na ma ni taxaw na waaye dama ko wax fii <laughs> euh, may yëgal gars yi ne jongante dimanche lay commencé <laughs> rétention d'information <laughs> waaw d'accord je suis maanaam j'assume waaw ndeysaan euh, lu doy waar moo am euh, ci atum 2019 la génnoon àdduna euh, fële ci Angleterre ci cancer boo xamante ni nii faatoon na ko le témoin yéen kaay dikk ci ak ñun ci nu mu gën a gaawee bor bi àdduna wërngël këpp am dañ ko war a dakkal ci nu mu gën a gaawee loolu témoin yéen kaay xamal nañu ko turbine yéen kaay dikk ak ñun ci Macky sàll ni nga xamante ni noonu lay tànnee ay nitam Euh, boo xoolee yaa xam mbay nataalam mu ngi ne fàng ci xët ma euh, turbine euh, Farba Ngom kasaalika naka noonu Bougazeli kasaalika naka noonu ah ak Moustapha Cissé ak yu Touré ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni nii turbine yéen kaay wax na Macky le soit de ses hommes Macky ak ni nga xamante ni nii noonu la tànnee ay jegeñaaleem Vox Populi dikk ak ñun ci Moustapha siselo affaire baa ngi gën a garaaw de mm. waaw waaw dàq nañ ko APR Euh, Benno dàq na ko. ci groupe parlementaire bi. Mhm. te gars yaa ngi koy fexeel nag man dégg de am na beneen audio boo xamante ni sax Moustapha génnewaat na ko lépp lu mu waxoon moo ko wax. <laughs> le quotidien yéeg yéen kaay dikk ak ñun ne euh, lii euh, am na benn politicien bu musa wax loolu ki nga xamante ni nii moom mooy Ablaye Wade. ne ko mooy serré boulon mooy dawal oto mooy def lépp gannaaw bi mu dakkalee waa postu premier ministre Macky Sall moom kese moo yor daamar gi mooy dawal mooy def lépp. Euh, loolu moom moo tax Walf Quotidien <coughs> méngale ko sax ak euh, bic bi nga xamante ni moom la yor ku mu gomee effacé la lu mu neex mu def ndax mooy njiitu réew mi noonu la ñu ko Walf Quotidien xëyee xamal euh, gannaaw Walfadjri Quotidien ah ñu wax ci <coughs> benn yéenekaay boo xamante ni nii. gis naa ci lu xaw a doy waar loo xamante ni nii am na ca. Mm. Euh, Chérif lii moom ah. Mm. Euh, ngi jeex de encore Ngom waaw defe naa ni jeex na de. ah. Mm. ah info li waaw ah. waaw l' info foo info l' quotidien dafa dikk ak ñun ci sa Seck bi ah. mm-hmm. nga xamante ne boobu gaa yi kenn déggu ko. gaa yi ne xiirukat bi boobu ak léegi kenn déggu ko lan moo waral li ñu mel am na lu muy wàcc. Mm-hmm. moom sa Seck. loolu la ñu li quotidien xamal euh, Cissé Lo it euh, dàq nañ ko ci fu bëri noonu lañu ñu ko yéenekaay bi xamale mhm. waaye euh, xam naa ñu yemagum fi ah. mu ngi noonu Lamine ba suba incha allah ci kàttan léegi désormais c'est 6h30. 6h30 incha allah pile mais lamb ji lamb ji. affiche lamb ji sàjj na. <laughs> waaw Chérif pourquoi may wax <laughs> euh, ñoo la seetaan da nga leen war a informer yaa ne ñu yeewu ko doon waaw mais d'accord fii plateau làmb la <laughs> bien sûr non information générale def information générale moi je te donne mooy am na ay combat ñeenti combat ah, VIP yu taxaw mallette yi mallette yi dem na démb ku ci bëgg lu leer jàpp leen ne après six mois d'absence hmm. jongante dafay dellu siwaat dimanche dinaan leen jox ni mu taxawee hmm. fi mu taxawee bu ma ko joxee fii kan jarul may def jongante amateur ñu ngi lay xaar Lamine jox benn sax xam nga benn bi mooy lan benn bi mooy lan Cheikh Tidiane jaawo ak shérif seen combat taxaw. <laughs> boobu moom moom yàgg na boobu du tey. <laughs> boobu mënoo ko arbitré. Lamine Samba mbégte la ñuy am saa su ne di jàkkaarloo ak yéen non c'est partagé di wax gaa yi ne mm-hmm. fii la. Mm-hmm. fii rek la jërëjëf fii dong kese la merci beaucoup nii lañ koy jàpp nañ ñaanal yàlla may ñu gudd fan may ñu wér mm-hmm. ndax askan wi moo ñu fa tax a toog du keneen wallaay informé juste et vrai beneen bi mooy mburu mi nga daan wax ni tey lan gën a soxla de fii la tàngee fii la xooyam xew. <laughs> waaw te comme su ma tànn rek dañuy ndekki dama gis benn tagal bu doy waar. <laughs> Fati. tagal ah non boo jékkee del baale <laughs> yaa ngi fayu xam nga sànq da ngaa ñëw mu la mu la dóor nga ko gars yi. non xam naa ni da ngay da ngay fayu mais bàyyi ma topp seen ginnaaw. c'est que li leer wu leer mooy mooy mooy di ko def di ko wax amul sens. jërëjëf bàyyi gars yi waxal la. jërëjëf Lamine merci merci kontaan nañu on te souhaite une très bonne journée. di ko ñaanal également.